seen i taxawaay mat na sëg ñu ngi ñuy taxaw ñu ñuy assister ñun mënuñoo sonn si kaso bi ndax ñoom ci biti dëgg la fekk ñu ñu fi maanaam dugguñu mais mel na ni ñoom ñoo ngi biir kaso ndax chaque mardi di nga gis leen chaque jeudi di nga gis leen seen dërëm desatul seen poos ñu ñuy jëndal ay yére ñu ngi ñuy jëndal lu ñuy lekk ñoo ngi xool ndax ñu ngi si jàmm lu ñu yëg ñu daw si ñëw ba fii donc ñooñu kenn amul seen fay mais day wane rek. Sénégal dépasé na ñun suñuy personnalité dépassé na suñuy intérêt personnel ndax ki nga xamante ne ay mille cinq cent et quelques détenus ñoo ngi fii amul kenn ku siy frustré wu. Cheikh Omar Kassé laa tudd ñu ngi may jàpp 22 juin te li gën a yéeme mooy ci biir néeg nañ ma fekk di ma jiñ ay trouble à l'ordre public quelle contradiction biir néeg nañ ma fekk jiñ ma trouble à l'ordre publique loolu mooy Sénégal quoi le 22 juin. mais di santaat yàlla bu baax di sant waa kër Ami Dia mm-hmm. ndax fa nañ ma jàppee fa nañ ma fekkee lenn mooy suñu toor mooy nekk ay citoyen gëm seen réew ba pare ànd ak président Ousmane Sonko muy teraanga bu ñu yàlla jox ñun bi waxtu jàng jotee dañoo jàng yàlla dimbale ñu ñu nekk si université bu gën a mag Sénégal muy Cheikh Anta Diop mm-hmm. bi waxtu topp politique jotee ñu topp lider bu gën a mag Sénégal muy usmaan Sonko. parle mooy ki nga xamante ne. yàllaa ko yàllaa ko beral beral loxo na ñuy wax ah jaamu yàlla xàkkan la muy nit ku am diine ku am ngor ku bëgg a Sénégal mooy ku lay ku bëgg a Sénégal ba pare di jàngal nit ñi nu ñuy bëggee seeni réew de par ses est-ce que comprendre nga lu gën a lu yonente bi sallallahu alayhi gën a bëgg muy jiireem Ousmane da teral ndax xaaj na salaire am jox mu wàccee jiireem na serait-ce que pour loolu rek Sénégal war nañu mën a am beneen beneen gis-gis ci moom ñu xam ne kii du neen quoi saa yoo ko yàqee yoo koy jéem a yàq nit ñi di ko gën a bëgg nga war a mën a xoolaat sa bopp ñun lu ñu am moo ñu ko gënal nekk nañu kaso mu defal ñu fi teraanga bi nga xamante ne mënoon naa dund ba dee duma ko am suma àdduna muy jàng alxuraan fii laa fiire iji te loolu yëpp ci ndimbalam la di ko santaat bu baax a baax a baax a baax a baax xamal ko ne nit gënu koo gore ndax waxtu tànn bi mu jotee suñu morom détenu la jël ne ko demal yaay nekk candidat pour gagner élection yi kon xanaa détenu yi sagal na leen mhm. moom desewuñu dara loo ma laaj ma mbuus bi lan la waaw bu neex la lii su may yëre ñoo fi nekk <laughs> su may poto saabu <laughs> comprendre <laughs> moom laa génne kaso mu nekk uh, ndam bu mag ci man d'ailleurs sax sama uh, papier libérable dama koy photo boole kook photo Ousmane sama photo photo Diomaye xamal ne carrément ñun amuñu benn regret si si si nekk fii si biir kaso bi benn fan nañuy am lu ñu métti mooy bu ñu degee Ousmane newul si jàmm sinon ñooy sant bu baax a baax a baax détenu yu fi nekk yëpp moo xam ay manifestant la wala ñu newul manifestant jéem nañu lu ñu mën pour ñu gëm projet bi te gëm nañ ko ndax ñoom ñoo ñuy jàppal journal ñoom euh, ñu nag ñoom ñooy seetaanandoor lépp lépp luy débat politique ñoo koy seetaan donc réussir nañu won leen ni ñoom si si si askan bi nañu bokk li leen war newul nekk si biti di jël ay alal jàmbur newul nekk si biti di def naka sudul noonu mais dañoo bokk ci askan bi war a participer si luy développer Sénégal ëllëg te comprendre nañ ko moo tax léegi mënatoo nax kenn ku fi génn moo xam luy sa problème mais di nga xam ni kii comprendre na Sénégal nu muy doxee te bu génnee di ngeen leen gis ak beneen taxawaay waaw loolu yëpp ci ndimbalu Ousmane nañ ko am. ndaw ñi ban kàddu nga leen di wax rek nga may ñu ko dernier laaj bi kilifa ñoo ko ndaw ñi euh, ban kàddu nga leen di jagleel ñoom ñi nga xam ne jamono jii yàqamti nañ élection yi ñëw réew mi daal di am changement seen côté. mooy ñu consacré seen temps seen aduna nañ ko consacré si jàng bu waxtu bi jotee nañ inséré wu ci tâche yi pour rek bañ ay défaillant di leen jiite ay incapable di leen jiite ñun Ousmane biñ koy topp dañ koo topp ci xam-xam. topp ko ci diine ba pare topp ko ci ci ci dignité ak maandute ndax jaamu yàlla dem na ñëw na maandute la Ousmane nit gënu koo maandu moom nañ koy toppee léegi nañ gën a taxaw rek ñu xam ne Sénégal dara du nekk gratuit def dañ koy xeex ko boo bëggee defar sa da ngay nangu xeex nangul xiif bu lekk amul nangul dëkku liif bu dëgg amul kese. waaw Cheikh Omar Kase jamono moom fii amul dañuy dañuy dañuy xoolaat keneen rek daal di koy jël euh, yéen ñiy suivre Sénégal 7 en direct euh, fii nga xam ne mooy prison prison bu Rëbës euh, Cheikh Omar ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi lay nuyu di la ziar di wax di leen nuyu également yéen waa Sénégal 7 yi tey dafa spécial tey li nga xam ne moom mooy vendredi 16 février ñuy xaarandi également boo xam Ousmane Sonko dina génn fi nga xam ne moom mooy moom prison bi donc suñ nee jël beneen kàddu rek beneen ndaw. mu wax salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi yaa ngi en direct Sénégal 7. askan bi di la seetaan tey ana yan kàddu nga bëggoon yëkkati ginnaaw gisee li nga xam ne muy image yi euh, ndaw Sénégal ñu génn prison. waaw salaamaaleykum waa Sénégal ok waaw maa ngi maa ngi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen di leen ziare di nuyu seen mbokk internautes yi nga xam ne ñu ngi seetaan Sénégal set euh, di leen remercier aussi ci taxawaay bi parce que guddi na. Euh, mais gis nañu booba léegi yéen a ngi taxaw aussi lii tamit dañ leen ci encouragé euh, li ñuy wax rek mooy mooy lii mbégte la mais aussi du du surprise mais aussi damay wax ne du gulwaar du lu nga xam ne lu ñuy lu ñu war a yuuxu la mbala ñu koy zible parce que ñi ñi nga xam ne nii tey ñu ngi leen di génnee dañ leen fi dugaloon injustement dañ leen fi dugaloon ci ay tappale dañ leen fi dugaloon ci ay caaxaan dañu leen fi dugaloon ci loo xam ne kenn xamul nan koy qualifier ndax lan ndax dama bëgg diw ndax lan ndax dama bokkul ak yow xalaat Sénégal nag bu ñu demee ba ñàkk bokk xalaat ak nit di fi nekk crime ça ça devrait extraordinaire maanaam lu yéeme lay nekk. tey jii nag jàmbaar yi nga xamante ne nii tey suñu borom dogal na ñu génnee leen dañuy ñaan ña fa des ñu génnaat ñoom ñoo leen jàppoon ñoom ñoo leen di génnee ku la tëj moo lay tijji quoi képp ku la tëj rek moo lay tijji. li may wax li may wax euh, population bi di ko wax rawatina sama mbokku jeunesse mooy que ni bu ñu nangu kenn divertir ñu. fi ñu jëm moo dàq lii fi ñu jëm ñun ñoo fa war a yeggale suñu bopp te li ñu li ñu koy fi ñu li ñu fay gën a may pour ñu yegg fa mooy nañu focus nañu concentré wu ci processus électoral bi nañu concentré wu ci jouru élection bi nga xam ne fa lañ jëm parce que dañuy dem élection. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñoom ñoo ko ñoom ñoom la rek <laughs> ñoom la rek ñoom ñoo xool ba mu neex leen ñu jàpp ko tëj jàpp ay nitam tëj ñoom ñooy toogaat nii ba heure bii. di jàpp ñi ñu jàppoon di leen génnee kon loolu ñoom la rek question boobu ñoom ñoo ciy répondre ni ñu defoon ba jàpp Ousmane Sonko nañu ko defaat pour bàyyi ko mu génn loolu la ñun fi ñu nekk xam nga fan la mooy jàkkaarloog ñoom ci élection yi ñoom ñu abal ñu parce que dafa doy dafa doy dafa doy sëkk na na sama mbokk jeunesse jeunes yi nañu dem ñu récupérer seen carte électeurs yi nekk ci sous préfecture yi ak ci yeneen lieux yi nga xamante ne nii yóbbu nañ fa eh, eh, carte yi parce que ne carte yi nekkul rek ci ci euh, ni koy waxee ci sous yi am na ci yeneen lieux yi mu nekk ku ci nekk commune bi nga nekk wala gox bi nga nekk fexeel nga xam fan la carte yi nekk nga dem nga jëli ko te ñu préparer élection yi parce que dañuy dem élection quant à booy ñu jàpp booy booy fi des nag ñu ngi ñaan suñu borom ñi ñi njëkk a ni ñu génnee si jàmm ak ak ak ak seen wér-gi-yaram ñi génnaat aussi ñu génnee noonu ci jàmm ak seen wér-gi-yaram le président Ousmane Sonko ñu koy ñaanal moom it fi mu nekk yàlla defal ko fa ay tawféex ba mu fekkaat ñu fi si jàmm parce que 2024 bi fii la Sénégal di jaaree changé ba faw incha allahu rabbi merci beaucoup. jërëjëf ñu joxaat ñu joxaat waaw joxaat ñu joxaat kàddu keneen salaamaaleykum kilifa gi tur beeg sant bi. man Jibril Seck laa tudd waaw. yow non jàppuñ moon de mais tey su sañoon bokk ci ñi jàpp parce que damaa gis ne ñii dañoo xeexal seen réew maanaam ay héros lañ daal ñoom waaw euh, ndax da nga am lu loo bëggaat ma ma yokkaat ko ci. waaw mbiru Ousmane Sonko xam ne moom euh, la si yow waaw donc contentement la quoi mais nag bu yem a yem a yem parce que nit koo xam ne li mu fu duggee li mu fi duggee nekkut lu mu jëf waaye ci coobari nit lañ ko fi dugal kon dañuy jàpp ne ñoom ñoo jël ay doomi jàmbur. jaay leen doole dugal leen fii li war nag mooy bañ ginnaaw bi nga xamee ne ay responsable kese ci nekk ndax yàlla dafa dogal Pastef amul ku yaafus koo fa gis ku bëgg dara la di liggéey ñu téye leen dagg leen seen activité yëpp donc na jàpp naa ne waruñu leen a libérer rek ay loxo war nañ leen a dédommager au moins waaw beneen bi ci tege nag may lancer waat ndaw yi message na leen nanu dem jëli seen carte d'identité fas yéene waajal élection yi ci kattanu yàlla waaw beneen bi ci tege nag muy mbirum Ousmane Sonko mi ngi ñuy wax mooy ñoom Ousmane Sonko man du ma di ko wax ci lu ne nag laa koy wax ñu nag moom sami'na wa na lum ñu digal gëm nañ ko te danañ ko jëf ci kàttanu yàlla waaw. waaw waaw gëm nañ ne mun naa génn sax ci guddi parce que nit koo xam ne jàppoo ko ci ay argument boo koy bàyyi mën nga bañ am argument yoo koy bàyyee ndax li xew fii ni tey lii kenn mënu ko noo ko mën a imaginer lii ndax lii Sénégal mosoon nañ xalaat xalaat ne dinañ fa agsi. yaayu xale yi ana benn kàddu nga leen di masawoo yaay xale xanaa di leen gën a masawu rek te wax leen na leen am nañ doom yoo xam ne mën nañ koo tiitaroo ndax doom joo xam ne jàpp jàppuñ ko ci rey nit jàppuñ ko ci euh, drogue jàppuñ ko ci yamba jàppuñ ko ci dara lan lañ ko jàppee dafa taxaw di résister pour lu defar ëllëgu réewam ñooñu histoire da leen di bind kon ku ci jur doom war ngaa gën a sant waaw beneen bi ci tege nag ma di leen wax ne leen mbirum Ousmane Sonko mii faalun li maa yurit yàlla lu ko soob lay def yàlla xam na ko te coobareem la wane ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko li mu am ak nii Sénégal mel ak ni ñu ko toppee ku ko amoon bayre boo koy sang nga nga sangoo ko wala nga sang ko sa doom. ñu gis également conseil constitutionnel. Euh, dafa daal di annulé président bi pour lu ñu ñeeloon wàllum report des élections présidentielles. waaw loolu de yaakaar naa euh, nekkul loo xam ne lu lu lu lu jafe jàngat la donte ñun defuñu droit yàlla xam ne defuñu sax école faf daara lañ jógee. waaye nag jàpp naa ne eh, ni mu demee bettul kenn quoi nekkul loo xam ne surprise la te it taxut nag may saluer conseil constitutionnel. parce que bu fekkoon ne seen liggéey dañ koo def na mu waree Ousmane tey mooy nekk suñu candidat mais lii xew nii dañoo dem ba yegg ci miir bës am na loo xam ne nii porte de sortie yoo xam ne nii buñ ko deful tamit fi ñuy mujj du baax. c'est ça la réalité waaye parce que conseil constitutionnel lii mu def nii euh, munoo wàññi mandat mun nga ne munoo yokk munoo wàññi mandat bëgg yokku manda loolu lu sigul